voilà jërëjëf euh, Alaaji Baye depuis France yéen a ko gis euh, moom moo doon def euh, midi plus donc ñu lay jaajëfal di la remercier tey nag comme ni ngeen ko gisee man rek maa nekk ci plateau bi ndaxte Ndiaye dama leen di booleeg internet yi Ndiaye Ndiaye tey dama lay booleek internet yi Ndiaye daal. daa trahir maf moom daal ma nga ma nga noonu ca yoonu berse bi daa trahir maf bàyyi ma fi man ak Youssou Sylla waaye ñun yéen internet yi yéen ñu gën a lépp donc euh, ñun tamit ñu nekk fii tey euh, jeudi 16 juin nga xamante ne c'est le dernier numéro de la semaine pour euh, indi leen li nga xamante ne ni moom lañ leen préparé ci seen émission li xew ci biir internet bi donc Bercy ñu ngi ko doon wax léegi ak Pape Cheikh ba léegi si la ñuy tàmbalee ndaxte démb indi nañ leen li nga xamante ne moom moo di température yi foofu foofu euh, ñu tegalaat leen ko rek parce que euh, sànq Pape Cheikh mi ngi koy wax ak benn internet tàngaay gi fa nekk daal dina xaw a dégg déggi dayoo parce que dañuy wax dérèglement climatique donc ñi fay dem wala ñi prévoir dem fa nañu prévoir euh, sol li nga xamante ne nii daal dina oyof euh, pour bés bi parce que gis ngeen ko euh, jeudi bi les températures vont aller dinañ dem ba 40 degré 40 degré nag ku ko dégg loolu moom tàngaay la bu baax donc yenu leen seen butéelu ndox foo leen dem mu daal di leen topp su ko defee ngeen mën a naan bañ a déshydraté wu loolu tamit ci la ndaxte xam ngeen ne. tàngaay ak fecc euh, xawta ànd daal donc dee leen jël seen seen i butéel ah, ngeen préparé vendredi 17 juin aussi c'est la même chose euh, température yi day daal di commencer 24 degrés dina dem ba egg 40 degrés mooy zone rouge yi ngeen di gis mooy yu xonk-xonk yooyu ngeen di gis ci carte bi donc ngeen daal di def attention rek yéen ñi nga xamante ne nii yéen a nekk foofu ca Paris Bercy wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg daal di dem Bercy ci kaw loolu ba léegi. Euh, gis ngeen nekk ne suñu émission yu bëri dañ ko daal di euh, déplacé foofu ñu won leen rek yenn image yu nga xamante ne nii moom moo nekk foofu xam nga ñun euh, li xew ci biir internet bi ñun coulissier ñu intéressé li nga xamante ne ci suuf moom la ñuy statuer moom la ñuy def ci internet bi donc comme ni ngeen koy gisee si image yi nii euh, lii préparation di plus la fële ca Bercy ak Pape Cheikh mu am ay image yoo xamante ne indi nañ leen ko ci Bercy bi ak kiiwu Snapchat bi comme ni ngeen koy gisee ñu seetaan tuuti Euh, deux vidéos rek yoo xamante ne dañ leen ko bàyyee te ñëwaat. voilà gis ngeen ko image yi mooy coulisses yi gis ngeen ne suñu caméraman yi suñu équipe yëpp ñu ngi daal di déplacé wu Bercy rien que pour ngeen am un magnifique spectacle euh, ci Bercy bi ci samedi bi incha allah donc gis ngeen ko suñu réalisateurs yi suñu caméraman yi ñoom ñëpp ñu ngi fa di def liggéey bu euh, am euh, vraiment bu mucc lañ koy waxee liggéey bu baax donc ñu leen di féliciter di leen wax jërëjëf ci liggéey bi ndaxte ñun tamit ñu ngi recevoir fu mu ne nii image yi bu baax. animateurs yi tamit ñoom gis ngeen ko Amina Poté Pape chair ah, euh, Abba No Stress euh, ñoom ñëpp nu cité que ñoom ñoom ñëpp ñu ngi fa rien que pour euh, bégal leen te daanaka sax Bercy bi semaine bi yëpp moom mooy tendance bi ci internet bi wala leen parce que statut yeeg yëpp yéen a ngi koy gis à propos de tendance sax. maa ngi gis benn euh, internet nii di ma di ma di ma bind nii di ma laaj ne ma naka la ñuy mën a xamee tendance yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir internet euh, loolu nag euh, il fallait que ma defal ko benn tuto par rapport ak loolu pour que mu mën a jàng parce que yenn saa yi ngeen bëgg a xam lan moo nekk ci biir internet bi lan moo xew dakaar wala seen dëkk Sénégal wala beneen dëkk donc il y a plusieurs manières mais am na benn boo xamante ne dañ leen ko indil à partir de Google Trend donc Google Trend boo ko déggee Euh, de c'est lépp li nga xamante ne mooy tendance lépp li nga xamante ne moom moo xewagum euh, moom moo nekk actualité ci dëkk donc c'est très facile da ngeen di suivre tuto bi bu leen neexee après ngeen dagg ko denc ko di ko jàngale da ngeen di dem ci li nga xamante ne moo di euh, trend point google point com donc euh, comme ni ngeen ko gisee nii ci écran bi soo leen ko tapé trend point google euh, point comme ngeen daal di wàcc si euh, menu bi ñu naan découvrir donc normalement li lii mooy feeñ ci yéen menu bu bleu bi donc boo leen demee si bar bi nga xamante ne mooy ci kaw ngeen daal di cliquer découvrir ngeen boo leen cliquer découvrir di ngeen gis lii moom mooy affiché wu donc bu boobaa ngeen daal di dem ci pays pays dans tous les pays nga daal di rechercher li nga xamante ne moom moo di Sénégal boo eggee ba Sénégal nag nga daal di cliquer foofu à partir de la nag di nga gis lépp li nga xamante ne moo nekk tendance euh, actuellement maanaam li ñuy waxtaanee ci internet bi wala ci YouTube bi wala whatever ci euh, li nga xamante ne moom moo di. Euh, internet bi soo bëggee nag affiner ses recherches maanaam nga xamante ne am na yow spécialement lenn lu ngay recherché moo xam si YouTube la da ngay dem ci catégorie boo boo demee recherche catégorie nga daal di cliquer YouTube boo cliquer YouTube foofu dina la wax par exemple YouTube Sénégal lan mooy euh, tendance yi maanaam lan li nga xamante ne internet yi moom la ñuy gën a seetaan wala moom la ñuy gën a recherché bu dee tamit Google la recherche Google da ngay dem rek sit Google nga daal di euh, cliquer foofu yaa xam actualité nga bëgg a euh, seetaan wala leneen bu boobaa aussi dinañ la jox lépp li nga xamante ne di moom moo di tendance fii comme ni ngeen ko gisee ci image bi bii nii bañ ko doon def tendance bi polygame la woon donc. noonu la ñuy defee li nga xamante ne moo di recherche tendance euh, ci euh, internet bi entre autres choses am na tamit beneen manière boo xamante ne nii euh, c'est très simple da ngay dugg navigation privée pour éviter yi nga xamante ne moo di cookies yi donc boo duggee ci navigation privée da ngay dem da ngay tàppe ci barre de recherche bi youtube.com foofu bu boobaa aussi lépp li nga xamante ne mooy tendance dina wàcc après nga daal di naviguer def explorer et cetera cetera donc internet boobu ma laajoon boobu les questions donc lii laa la indiloon tey. pour yow ah, su ko defee euh, di nga ko mën a jàngale yéen ñi di seetaan tamit di ngeen ko mën a jàngale donc pour xam tendance méthode yi bëri na mais dañ leen indi bii nga xamante ne nii euh, la plupart euh, dinañ ko tàmm di ko utiliser ci kaw loolu aussi aujourd'hui c'est le jeudi 16 juin jeudi 16 juin nag soo ko déggee moom mooy journée mondiale de l'enfant africain donc journée mondiale de l'enfant africain moom la ñu jagleel li nga xamante ne moo di jeudi 16 juin donc journée boobu lu tax mu daal di am benn événement annuel la boo xamante ne nii dafay daal di euh, commémorer maanaam day daal di euh, du ma ne fete sax mais euh, day daal di fàttaliku li nga xamante ne moo di massacre xale yooyu ca Soweto en ci si régime apartheid bi donc ay xale yoo xamante ne dañ leen faatoon donc depuis jours boobu nag chaque 16 juin dañuy fêter li nga xamante ne moo di journée mondiale de l' enfant africain fii suñu ministère de la femme et de l' enfant ak la protection des enfants aussi di ko fêter euh, génne aussi benn affiche def benn publication di wax ne que nañu protéger xale yi euh, nañ leen dem euh, ñaq ji nag vacciner ji ndax loolu aussi c' est important d' à propos de cette journée am na benn benn fait boo xamante ne dañ koy dénoncé ndax dafa daal di xew fële ca Sébikotane benn xale bu góor bu am 5 ans boo xamante ne dañ ko daal di retrouver euh, dañ ko daal di rey euh, ci benn immeuble en construction donc euh, ñu daal di mu nekk encore loo xamante ne lu ñaaw la comme ni ngeen koy gisee nii ñu koy dénoncé si réseau sociaux yi xale bu am 5 ans la dañ ko retrouver foofu ñu daal di ko rey noonu fële sa Sébikotane ci benn quartier bu ñu daan Cokko ki xam ne dañ ko soupçonné jigéen ki euh, yoon daal dina ko teg loxo ñu ngi koy enquête de toutes les façons dinañ leen indil euh, li nga xamante ne moom moo di ay éclaircissement wala bu amee en tout cas développement ci kaa bi mais tey ci li nga xamante ne moom moo di journée internationale euh, journée plutôt mondial de la protection de l'enfant euh, de l'enfant africain donc ñu daal di gën a jàpp rek euh, gën a toppatoo li nga xamante ne moom moo di suñu doom yi ak euh, xale yi donc euh, loolu moo nekkoon tey jii nii lu gën a important loo xamante ne nii bëggoon naa ko man en tant yaay xam naa ne moom Ndiaye moom bu ma gisoon tey dina ne bàyyi ma sa émotion yi mais il faut Euh, ñu daal di ko wax ndaxte l'enfant c'est l'avenir euh, de demain donc euh, ci kaw loolu aussi on va enchaîner avec le Trophy Tour démb ñu ngi leen ko doon wax li nga xamante ne moom moo di coupe bi mi ngi daal di wër Sénégal ak li ko wër li yëpp donc démb trophée bi mi ngi nekkoon Mbour euh, mu daal di am euh, benn vidéo boo xamante ne dañ ko téye woon euh, voilà population bi génn ñëpp kontaan parce que gis nañu seen coupe quand même som sommes champions d'Afrique dañ koy rappeler ñu digle leen vidéo bi ngeen xool ko tuuti ñu ñëwaat. la ñu def daal di def seen musique ah avec euh, euh, ñi ñi di daw euh, vraiment mu nekk mbégte encore parce que boobu ba léegi trophée bi mu ngi daal di wër Sénégal su ko defee nit ñi mën si jàpp photo aussi donc démb comme ni leen ko waxee Mbour moom moo recevoir woon li nga xamante ne moo di coupe bi mu nekk ndam bu baax ndam bu rëy si ñun ci kaw toujours football la ñuy daal di des ak ki nga xamante ne moo di Sadio Mané li ñuy naan liggéeyu ndey añub doom gis ngeen image yooyu yooyu nga xamante ne dafa vraiment euh, tooya xol euh, nga xamante ne Sadio maane mi ngi ànd ak ak yaayam ah euh, keroog bi mu demee ci dëkkam. ak euh, li nga xamante ni moom moo di coupe bi euh, yaay ji nag di ko expliquer di ko wax ne que ne euh, voilà moom dafa ragaloon sax seetaan match bi parce que voilà dafa tiitaloon ki nga xamante ne moo di doomam donc d'ailleurs Sadio Mané nee na yaay ji da ko ne elle a perdu 7 kilos maanaam perdre na 7 kilos ci kan bi tellement da doon stressé ah, di ko ñaanal donc bi ñuy gañee moom moo ko woone ko gañe nañ mu naan ko ah kon gagné yéen voilà donc moom daal xam naa ne moo nekkoon. benn sénégalaise boo xamante ne toogul woon ci kanamu tele bi di seetaan ndax li mu doon stressel euh, doomam di ko ñaanal euh, donc euh, ñuy jaajëfal di si profité rek di jaajëfal ñu ñëpp suñuy yaay ndaxte doom amul fayu yaay di ci profité di sargalaale sama sama yaayu bopp sama yaay ak sama yeneen yaay yëpp nga xamante ne maa leen yaayoo donc di leen sargal di leen laan merci pour li ngeen di def pour seeni doom ak mbëggeel bi mënuñu leen ko fay euh, donc euh, toujours si Sadio Mané euh, am na ay rumeurs yuy courir depuis parce que xam ngeen nekk ne Sadio am na ñu ne dañu dafa daal di signer benn contrat fële ca Bayern de Munich donc contrat boo xamante ne c'est un contrat de trois ans avec 31 millions d'euros à la clé donc loolu lañ ñu foot équipe nationale de football xamal donc. transfert bi daal di nekk euh, presque effective na donc il y juste ay affaires yoo xamante ne dañ ko war a régler donc la fin du dossier de Robert euh, euh, bi nga xamante ne moo nekk foofu ci club bi en tout cas ñu ñuy xamal nekk kii di entraîneur u Bayern Nagelsmann moom nee na dafa bëgg Sadio à tout prix maanaam daal jaral na ko lépp pour Sadio daal di ñëw na ñu koy souhaiter bonne chance xëy na professionnel ak expert foot ñoom dinañ la mën a wax ndax euh, prix de transfert boobu baax na wala baaxul en en tout cas nañ jàpp nekk ne finalisation bi contrat ak na c'est euh, effectif toujours si football mais fii ndakaaru Ndiaye dafa am lu daal di xew démb ci demi-finale Coupe du Sénégal loo xamante ne ñu bëre ñu ngi koy ñaawlu ndaxte euh, kii di Casa Sport moo doon tase en demi-finale ak agelle bu Rufisque mu daal di am nag ay xeex lu tax mu am ay xeex ñu seetaan vidéo bi dal di ñëwaat. voilà gis ngeen ko noonu xeex bi ci euh, terrain bi mu daal di nekk vraiment loo xamante ne lu ñaaw la pour image yu football Sénégal mais surtout pour Sénégal parce que lii dafa rafetul te surtout bu ñu leen waxee raison yi nga xamante ne moo taxoon ñu ne woon dañuy euh, dañuy xeex lu tax lii am dañ ne woon affaire de mystique la affaire de kii moo liggéey diw wala kii moo liggéey diw euh, donc looloo tax match bi daal di tas nii ñu daal di jàpp yéen a ngi koy gis nii avec la vidéo ku nekk di xëccoo li ñuy daal di xeex mais mu nekk bu ñaaw daal ñu koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndax lii rafetul benn yoon benn yoon ci image yu sport euh, euh, sénégalais d'ailleurs sax am na benn élément boo xamante ne ñu ngi ko jëlee ci suñuy euh, confrère Seneweb ñu daal di déglu ko tuuti ñëwaat. voilà euh, euh, vidéo bi pareegul mais de toutes les façons gis ngeen ko c'était très dommage même euh, ñi nga xamante ne ñooy commentaire ak ñëpp ñu ngi ko doon wax euh, mu nekk image bu ñaaw te ñu leen di ñaan rek beneen yoon lu mel nii bañ a am parce que ñaaw na trop ci li nga xamante ne moom moo di image yu dëkk bi ñaaw te fi nag bëri nañu wax wax yi bëri nañu def def yi bëri nañu accusante yi bëri nañu ci dëkk bu mel ni Sénégal looloo taxoon tey on a jugé nécessaire de may leen benn extrait. kenn koo xamante ne ni euh, amoon na kàddu te mi ngi doon wax dëgg euh, bu wér a wér euh, donc ñu déggal ñu déglul leen tuuti benn extrait daal di ñëwaat. am na njaalo bi bari lool ak fen yeg yi ngeen di warante defantalu ñaaw defantalu bon bañ ku leen ko wax yàlla ni borom xam-xam yi wax leen bu ngeen waxut ba dee yéen laay la këll ak jaanama inna sikku laay ten foon moominiin fa sakkir i nafaati sikra sey sakku man yax saa hadis ba ni sikkuru laayi mooy yërmandey doomu aadama mooy njariñu doomu aadama kon bu ngeen bëggee di dem àjjana voilà kii nag euh, ani ku ko xàmmee nañ ma ko wax euh, ñu tegal ma d'ailleurs benn image man man dama leen di jox benn indice parce que instant bi dama leen bëgg a gañeloo ci loo yi nga xamante ne moom la euh, CSB di daal di joxe donc dama leen bëgg may ci loo yi donc ki ma ko ku ma ku ma trouvel turu kii nii ñuy wane ci écran bi léegi ki nga xamante ne ni moom moo daal di wax extrait bi ngeen déglu léegi moom moo ko doon wax ku ma trouvel tour bi léegi dina am benn loo boo xamante ne nii lundi incha allah euh, dina ko ñëw euh, jël si donc léegi maa ngi xool nii ah ak sama téléphone ci commentaire yi waaye ah gisaguma ah gisaguma de gisaguma en attendant euh, ñu fàttali leen rek li nga xamante ne moo di jili CSB euh, bi nekk cité Kër Góor gi gis ngeen ko noonu 33 822 47 00 ku ko bëgg a joindre wala euh, Colobane aussi mu ngi nekk aussi marché bi mu nekk suñu sponsor boo xamante ne nii moom moo leen di indil ay loo yu mucc ayib ci si loo yi sax daal di la ñuy tànn pour xam ki nga xamante ne moom moo trouvé image cachée bi donc ñu wanaat leen rek. li nga xamante ne moom moo di image cachée bi ñu fi bàyyi woon lundi incha allah euh, dinañ leen won image cachée bi kan la euh, su ko defee dinañ tànn kenn daal di ko may ay loo donc kii moom defe naa bii moom war na mën a yomb si yéen ah war na mën a yomb bu baax a baax man nag maa ngi gis internet yi ah ñu ngi bind ñu ngi bind waaw. est-ce que ah Seydina Mouhamad Seydina Mouhamad yow sa tur bi macha allah Seydina Mouhamad daal dina ko trouver nee na Ousmane Seck moo ngi dëkkoon Pikine euh, euh, wallaay euh, ku ñeme woon dëgg donc Seydina Mouhamed jàppal ne lundi mën nga ñëw fii ci diggante midi. wala ba 11h midi ñu daal di la jox ay loo yi nga xamante ne nii euh, voilà ñun ñoo la ko tuppeel ak euh, li nga xamante ne mooy CSB bi ñuy accompagner donc seen euh, fii lay pare ak yéen si seen émission lu xew ci biir internet bi bu jeudi bi tey moom dañ koy def genre fast track parce que xam naa ne xel yépp nga bersi donc dañ koy gaawantu rek daal di. tàggatoo ak yéen jox leen euh, di dajee lundi incha allah ci beneen émission li xew ci biir internet bi si là profitez de votre week-end ah te xam naa ne moom jeudi vendredi samedi ba dimanche dina am encore lu bëri lu xew su ko defee ñu daal di tàmbaliwaat ak yéen rek ci lundi bi di jaaraale foofu di remercier ki nga xamante ne moom moo jaar si taybaas bi nga xamante ne daa daa toog daal xam nga taybaas day toog waaw taybaas bi daa toog euh, mu di euh, mu duggee héritage bien retrouver euh, numéro bi sur mes réseaux sociaux personnels euh, Instagram ak Facebook en attendant euh, bon merci bu leen fàtte samedi la et on se retrouve à lundi incha allah